ma réew mi lan moo ca des léegi yi ma la wax nii ban moo ca dox. dara doxu si de. léegi nag moom laa wax sànq ne la dañ dañ ne jëf mooy nattukaayu wax. Hmm. léegi man en réalité bu fekkee ni Macky Sall war na am troisième mandat ba di ko wax ñu koy muux muxee mais fan la ko war a teg ndax lu laa de keroog ba mu paree waa Brésil ñoo ne ko doo dem tegaat ko. très bien ndax liggéey yu xarañ mu def léegi man loolu laay wax ko en réalité léegi enseignant yaa ngi jooy. santé gi baa ngi jooy. c'est-à-dire en réalité ñun Sénégal bi ñu nekk nii mais lan la ko lan la ko Sénégal Macky Sall gouverner. marche dimanche bi pour loolu la. non dimanche non dimanche on parle de l'homosexualité ah, dimanche dimanche on parle sànq yaa koy laal bëgg naa si taxaw euh, on parle de l'homosexualité dimanche xam nga ñun dañuy def proposition de loi ànd sàmm jikko yi dugal ko assemblée nationale pour ñu criminaliser homosexualité ñu rejeter ñu ko eggul sax plénière. alors ñun ñu woote le 20 dimanche Obélix pour Sénégal yëpp ñëw ñu wan opinion nationale internationale wan Macky wan ñëpp ne leen askan wi nga bañal euh, criminalisation homosexualité mhm. donc loolu moo def ñu woote dimanche parce que pasan ñun tubaab bi dañoo yàq suñu àdduna xam nañu yàqee suñu àdduna 400 mm. ans d' esclavage 150 doon wax ñàng mi ñoo ñu jàngal ñu leen suñuy doom jox ay suñuy noonu mhm. tardeel suñu bopp maanaam balaa ngaa jàng xam-xam foog xale bi tey soo koy yónni jox jox wax ko olof fukki dërëmu mburu juróomi dërëm xam na ñaata lay indi même soo amee quatre ans cinq ans mais foog nga jàngal ko ci français du pain vingt cinq francs doo ko wax juróomi dërëm wax yooyu ba pare muy soog a xam pour dem pour mën c'est-à-dire boobu ñu tardé noonu nga xam ni doon da ngeen ni nangu ngóor jigéen Sénégal di ratifié yoo xamante may ma may ma loolu mhm. ñii dañ leen war a xam na ba ko waxee léeg-léeg moo tax toog ci rajo télé di wax sax baax na léeg nga dugg ci néeg ma woon duggee ci néeg li ma bëgg a wax ne naa ko fa Aïcha xam naa la nga bëgg a wax xel xelu téléspectateur xam nga dañoo muus ma allah yegg na fa ok mi ngi noonu merci beaucoup pour la chronique du vendredi Karim Xumxa euh, dimanche euh, dinañ ñun ñëpp bokk ci ñi war a 9h du matin ba 14h voilà ñu ñëpp dinañ bokk ñëw Fama Ba. nous sommes rassemblement la sitting la quoi en fait ñu koy taxaw sur sur. bëgg a xañ jigéen ñi góor. soxor bëgg a xañ góor ñi jigéen tamit. mais loolu. ah ak combinaison boobu lu def. Aïcha mi ngi noonu ñoom bañ yokk xeet rek bañ yokk xeet rek tubaab bii nasaraan si doy nañ waar Aïcha mi ngi noonu en tout cas ce n'est pas nous du suñu ay valeur bokkul ci ñun te nag li ngeen di xeex mooy liy dëggal Sénégal moom la suñu maam yi bàyyi woon fii ndax réalité socioculturelle dafa am nasaraan si réalité socioculturelle du takk ñaari jabar mhm. moo tax ñoom d'accord ñu ko ñu nangul leen ko seen réew suñu réew na kenn du fi ñëw teree ñu nag góor ak jigéen di sëy moo tax na ñëpp jóg yàq suñu àdduna yàq suñu alaxira waaw <laughs> ah ëpp de am àdduna bàyyi yu bëgg yàq suñu nañu bàyyi alaxira sax bi sax mais bu ñu def ay góor jigéen quand même. dañoo am ba ñu noonu en tout cas il faut qu'on termine en beauté avec euh, Juma Moubarak ànd ceeg Fama Ba ak i gan gi nga xamante ni mooy ñëw yandil plateau bi euh, Baye Karim xam naa dañ la rek nga pare marche bi. waaw incha allah boole ci. maa ngi lay bëggee di leen bëggee baax macha si plateau bi euh, di rafetlu invitation yi am di wax rek liggéey bi actuellement nii mooy wax bi yëpp mooy ñu fexe ba daje parce que affaire diine la affaire valeur la diine Sénégal mu nekk en jeu quoi ngëm-ngëm yi muy chrétien di musulman di principe yi ñooñu la ñuy fowe merci beaucoup jërëjëf Aïcha merci beaucoup gan gi euh, bu fekkee ni mën nañ dugg juma mu barak rek mu daal di dikk ca moom Serigne Ibra Samb euh, ñëw na nag dañu koy dalal bu ko defee ñu daal di euh, tàmbale ko ak ok macha allah comme ni nga ko waxee rek moom it dañ ko fi daal di dalal rek euh, ci wàll gi mu nekk. Euh, mu di lu am solo loo xam te ne macha allah mu di ndaanaan bu mag sëñ Ibra Samb lay wuyoo ñuy am plaisir tey dalal ko fi ci suñu rubrique euh, Juma mu Mubarak moom na xasida yi bu ko yëkkatee rek nga gis ñëpp dañuy daal di kontaan rawatina ci murit yeeg ñi nga xam te ne ñoom lay bokkal jotaay ñi di. di def ak ñoom ay émission ak yeneen tey ñu dalal ko fi plaisir la ñu bàyyi la nga nuyoo rek sëñ Ibra jërëjëf soxna Fama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar soxna Asma nu ngi lay siyaare bu baax. waaw ah. Assane nu lay siyaare soxna si. soxna Fall soxna ngi siyaare baax ak sa maa ngi lay siyaare bu baax soxna Fama ñu ngi lay siyaare bu baax yow tamit. macha allah di eh, jiital ci siyaar bi sunu sëriñ. Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko. amiin yaa rabbi. di ñaanal sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Abdou Aziz moom sëñ Baara. amiin di suñu buntu ci sëñ Touba. noo ngi koy siyaare te di ko ñaanal di ñaanal suñu ñaari wajur suñu borom guddal seen fan te wéral leen di siyaare mbooleem koy topp plateau bi rek.